yi nit boobu est-ce que euh, euh, day mel ni service secret yi dañ nekk di liggéey ak moom est-ce que service secret yi vraiment ñu ñu ñu ngi liggéey ñu ngi def seen liggéey comme ni mu waree parce que on se pose des questions on dirait que ne moom moo jàpp otage dëkk bi da ngay da sax di ragal mu publier sa photo parce que su publier sa photo rek après lañ lay dem dem jëli loolu est yaa ngi koy gis si si xam nga mbir mi bu nekkoon sa des deux mhm. kon nit ñi duñu fi toog fii di def ay questionnement je vais convoquer une histoire contemporaine xam nga lan moo tax. Euh, soxna si saway nit ñi en fait dañ naan est-ce qu'ils ont élu le président qu'ils devaient élire mm-hmm. parce que ci ay dige ci ay engagement patrie avant le parti mm-hmm. euh, gouvernance vertueuse et sobre xam nga ku ñuy wax Thérèse Faye Diouf mm-hmm. dafa soutenir thèse am en janvier 2011 mu tuddee ko soutenance waaw mémoire de maîtrise la maanaam thèse mémoire de maîtrise encore une fois de sociologie les rapport entre médias et pouvoir deux points le cas du groupe communication trois mois lañ ci teg mars 2011 Cheikh Tidiane Sy publié une liste de dix-neuf personnes moom ci la bokkoon xam nga lañ ko la lañ ko doon tuumaal tentative de coup d'état mm-hmm. Thérèse Faye mi boobu Macky sàll comme dafa génn rek mu ànd ak moom mooy li kii di wax nii rek. Mhm. c'est-à-dire dara beesu fi quoi en réalité soxna y rien de nouveau alors que dañu yaakaaroon ki fi nekk nii bu ñëwee noo yi kenn dootu ko wax soxna si ñun c'est-à-dire man xaw ma Sénégal kañ lay baax quoi franchement man xaw ma Sénégal kañ lay baax. liste de 19 personnes ñu boole woon ci list bi ku ñuy wax Moustapha Ndiara fay moom li ñu ko doon toppee mooy planifier un dispositif précis. de subversion active et de déstabilisation des institutions par la violence soxna si lii du ay caaxaan de ci ay accusation mhm. Cheikh Tidiane Sy moo ko waxoon troisième personne 19 lañ trois rek laa ci euh, jukki Demba Sy à l'époque moom moo nekkoon secretaire général du mouvement des élèves et étudiants socialistes le MES moom ñu ngi ko doon toppee euh, atteinte à la sûreté de l'État <laughs> atteinte à la sureté de l'État un étudiant yaa ngi dégg article quatre-vingt ca jamono jooju code pénal conspiration complot article soixante-douze excitation à la guerre civile <laughs> article soixante-dix-neuf atteinte aux institutions yaa ngi dégg atteinte aux institutions manœuvre de nature à compromètre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves article 80 c'est-à-dire bu 19 personnes lañ entre autres quoi dama ko résumer entre autres lii lañ leen doon toppee mais soxna si est-ce que am na benn suite maanaam bu amoon suite aujourd'hui Thérèse Faye du nekk directrice générale parce que li ñu lay toppee coup mais soxna si da ngay jël ay 10 quinze 20 20 ans wala lu ko ëpp cest à que politique moo ko waxoon mhm. Cheikh Diagne c'est pas le c'est-à-dire nit ñi mer mer la ki fi nekk votel ko aujourd'hui on est en train de débattre. de revivre les mêmes scénarios. c'est-à-dire c'est est-ce que c'est-à-dire est les gens imaginent que c'est-à-dire les Sénégalais ont voté en 2012 massivement à hauteur de cinquante 65 pour cent pour rien du tout. soxna si. xoolal li ma lay wax c'est-à-dire lii boo ko déggee da ngay dar gémmi da tiit te ñii bi ñu leen koy euh, tuumaan lii. Mhm. soxna si wóor bu dee ay tubéy lañ doon sol seen tubéy yi amul sax biscuit pour bu ñu sànni ay policier mhm. amul sax ay paakawaañ. ñuy nekkaat fii naan ma ay non mais cest gis nga soxna si réew mi ñi fi nekk moom mënuñu ko defal très sincèrement et l'avenir du pays ne peut pas se faire avec eux. c'est ça la réalité parce que dañoo montré seen i dañoo montré seen i léegi nag ils sont dans un forcing de troisième mandat te le juge constitutionnel dafa wax ni le mandat en cours est hors de waxul le nombre de mandats nombre de mandats yi ñaar la de nombre de mandats yi ñaar la alxuraan nee na tilka asharatun kaamila moom def na ci fukk ak tekki yeneen ñaar alxuraan waxaat ne wa min kulli shay'in xalaqnaa zawjayni la'allakum tazakkarun lu ne ñaar donc ñoom très sincèrement soxna si boo gisee errement yi di c' est parce que wax dëgg neex yàlla en fait néew ma defuñu fi dara mais dañoo montré seen limit ba pare féeguñ nit ñi léttaguñ nit ñi mais bu c'est-à-dire soit à l' université Anta Diop de Dakar dañuy génne loi génne këyit na kenn du fa politique mais mënuñu nangu yeneen organisation yi. di politique di politique. Mhm. ñeneen ñi ñu ne du ngeen fi politique. franchement bokk na ci foofu lay daaneel li Cheikh Ahmadou Bamba dénkoon ku ñuy wax sàmmalaw bay jaay. ca Jolof waxoon na ko ni sa doole jii bul ko jël di ko exercer ci ñi nga xamante ni ñoom nga jiite parce que boo continuer ci lii euh, euh, vous êtes en de de de de de de creuser votre propre perte te ñi fi nekk kenn ñaanu leen loolu mais li xew nii sa waay nam. Samba Laobé la jëfi Samba Laobé la daal. ah. li fi xew jëfi Samba ah, de toute façon daal. li xew moom neexul kenn. on est en train de revivre les mêmes situations que 2011. mais pire encore parce que je pense même... que ne. Euh, li nga xamante ne moom mooy euh, délit d'opinion euh, léegi la gën a am doole que bu njëkk ba moom mooy sama xel di dem rek si Moustapha Diédhiou mi nga xamante ne ñu ngi ko jàppoon ci benn post Facebook bu mu defoon benn oustaz boobu ba léegi quatre ans ngi nii mu nga ca mu nga ca prison bi sëñ Assane Mbacké nit dof tey Abdou Karim Gueye la nga doon wax lu bëri tey dellu si waat nañ mu ngi feeñ ku ci mel ni Abdou Karim Gueye naan dossier bi dara nekku ci dañuy sonal ku ci mel ni Pape Ndiaye mais franchement toutes ces personnes là yi ñu tëj ndax dossier Sweet Beauté Euh, tey jii ñoom ñëpp ñu ngi euh, <laughs> ñu ngi fa muy mel ni histoire mu ngi leen di bëgg a jox dëgg. Mm-hmm. Euh, su nekkee rek am ngeen lu ngeen ci ajouté si par rapport université balaa ñuy jàll ci beneen thème bi. si si. Mm-hmm. bon man je suis un ancien leader du mouvement syndical universitaire. Mm-hmm. donc xam naa fa bu baax. acca poli naa. politique naa. lu nekk ci biir <laughs> université bi. effectivement jean ci même côté que Mansour gis nga Thérèse Faye Diouf. boo gisee may am estime lu bari ci moom sax. elle était c'est-à-dire bokkoon na. ci mhm. ñi ëpp courage. Mhm. ndax moment boobu c'était pas évident du tout. tey ñii di ratatat ci biir APR yëpp jamono jooju man xaw ma leen woon. mais elle était toujours au front. Mhm. moom vingt euh, vingt trois juin bu fekk na moom elle était agent ci biir assemblée. ci biir assemble bi la mënee combat bi. taxaw jàmmarloo euh, gars yi mais. dossier bi <laughs> arrêté wuñu ko. parce que effectivement am na benn tentative de sabotage bu amoon ci cortège u président Wade. sur la corniche. gis nga charge yu metti yi nii yëpp ngay wax. Mm. abandonné wu ñu ko woon. Mm. mais 2011 la. 2012. Mm. régime ba wadd. waaw ah, léegi mm-hmm. pour encourager mes amis de Pastef. man foofu laay waxee quoi. que ni mm-hmm. lii ñuy teg seen kaw yëpp. Mm-hmm. ay la yeween nguuru yàlla rek dul jeex. Euh, bu président Wade rempilé woon tey jii ñoom Thérèse ñu ngi dund lu metti mais ji a dit net stop. bii nii tamit maa ngi koy rangé ci même rubrique bi parce que. Euh, <laughs> am na ku may wax léegi mu ne ma mais xalaatoo ne Ousmane ko am na tuuti baatin parce que li xew yëpp quoi ak malgré kenn ñëwul layal ko mais euh, mbir yaa ngi leer ci kawam nii foog nga ne lii est-ce que neen la parce que dafa mel ni yan saay euh, waa ji ay ay ay xaw ma donc ça pour lii nii ngeen di dund ay la yéwén nguur yàlla rek moo doon jeex lépp lu ñu mën a teg ci seen kaw il faut continuer le combat avec détermination et engagement parce que nag euh, nun ba ñu nekk université ñoom dama doon ànd ak ñoom yenn saa yi di ñàkkante tey jii ils voient les mêmes choses et même sinon pire parce que le président Wade mën a nga discuter sur la question de la recevabilité de son mandat parce que bi ñu koy fal amuloon limitation mandat mm-hmm. Mm-hmm. loolu mooy dëgg mm-hmm. la limitation des mandats était supprimée en ñu fal ko 2000 mais ak président Wade est nit yu doon dugg ay nerf situation mais man je pense. élégance bi en tant que juriste ni sa candidature était valide. Mhm. man loolu laa gëm. <clears throat> mais bii. ki nga xamante ne ba nga koy fal ba suñu yoonu yàlla tey la limitation des mandats est mhm. mais yow mi taxawoon doon xeex sur des combats de principe. finalement kenn gisatu la c'était pas des combats de principe mais des combats de. waaw bëggoon naa la ci laaj ci mandat bi. Mhm. ñoo ngi gis ñoo ngi gis.